asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taaliba yi dama leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm xale bu jigéen bii ngeen gis nag day sunu mbokk di suñu jarbaat di suñu lépp yàlla dafa dogal mu yor ay mbokkam xaw na yàgg tuuti nag nuy sàkku rek képp ko ci xam ne gis nga ko rek nga woote ci numéro yi ñu leen di bëgg jox incha allah mën nga woote ci 612 77 612 04 52 wala ci numéro yi ñu leen di affiché nag. lillaay wa rasool yi képp ku ci mën a def jàpp rek noo mën dafa yaatal ko tamit nga yaatal ko ci seen groupe Facebook yëpp groupe boo ko mën foo ko mën a yaatal rek baax na jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu